ci tënk bu gàtt ñu ngi beesal sunu nuyoo ci ñëpp ci ndigalal alxalifa cheikh Mouhamadul Mahi Serigne mbay Niass miy toog ci jotaay bi yàlla na ko yàlla wattu ci wér ak tal daf ñu digal ñu jottalil ko cant ak ngërëm ak i nuyoo mu jëm ci ansaaru diin bi nga xam ne ci ronam lañu ñu taxawee bés bii sant yi tamit jarbaatam ak docteur Seyd Ahmad Boucar Alhaji Omar Niang mi nga xam ne mooy rais nadwa bi gannaaw kàdduy cant ak ngërëm sëñ bi dafa wax ne mu ngi leen di feddalil mbégte mu mag mi mu am moom ak ak rakkam ak njabootam ak mboolem topp mi aju ci pays Cheikh Sëñ Mbaye Niass te mu nekk seen bunt ci baay ci mbégte bu kawe muñ am ci jëf ju rafet jii ngeen def tuddee Cheikh Sëñ Mbaye Niass wala teralee ko symposium bi nga xam ne mooy am ci gàmmu Medina bàyyi ci at mi mu leen di wax ne loolu lu rëy ci moom la te li koy feddali teewaayam bi ci la bokk mu gis ne nag fàttaliku nitu yàlla wala nit kum mën a doon ku jaar ci taarix warul yem ci fattaliku jëmmam juddum ak yu mel noonu waaye gis na ne war na ko romb jëm ci fàttaliku jikkoom jëfam ak taxawaayam mu ne suñu fàttaliku nag Cheikh Sëriñ Mbaye Niass ci pays baay moom dafa gis ñetti yëf yoo xam ne munu ko ñàkk fàttali ndax am gu mu am solo ci dunduk mbooloom baay ni nga xam ne ba tey ñu ngi jëfandikoo meññetam ñett yooyu bi ci njëkk mooy gannaaw bu fay du tàkkee comme ni ngeen ko xamee mbooloo yi tegaloo di fekk si baay lew na ngir màndal seen mar ci yàlla bi yëf yi tàmbalee xat di jafe Cheikh Sëñ Bay Ñas ci lu ñu Sëñ Barham radiallahu anhu nettali te ku ne xam na ne moom ku wóor la ci nettalim mu ne Cheikh Sëñ Bay moo ñëw ci baay radiallahu anhu ne ko yàlla jox na la lu gën cinquante mètres bii nga xam ne ci suñu baay Alaaji Abdoulaye nekkoon xajatuñ ci nañu gàddaay baay digal ko mu dem ci ndigali baay ci yonentam toppatoo ba jot ci suuf si nga xam ne mu ngi woon ci loxo borom coofam ci lañ sañ ci Medina gi nga xam ne ay xéewal dañut di fi dotteeku di jëm ci ñun loolu benn initiative stratégique la bu mu jël boo xam ne ci ndigalal baay su ko jëlutoon ba léegi jafe-jafe yi mu ngi wéy ñaareelu initiative stratégique bu mu jël boo xam ne suñ koy waxtaanee war nañ ko fàttaliku mooy bu ñu ñëwee Medina naka mbiram baay biñ ko ubbee dafa dem tuuti rek commencé muqaddam yi bare yëf yi bëgg a mu ñëw ci baay ne ko tasaareel muqaddam yi ba ma ko waxee loolu daf ko ci tegal ne sëñ nii nag ba ko ci sawet ndax li nga bëgg mën na ko bàyyi tasaare muqaddam yi ñu dem liggéey yi loolu bokk na ci li ñu may ndam li nga xam ne moo tax fay du gaaw a tasaaroo beneen initiative stratégique bi mu jël gannaaw loolu bi nga xamee ne oote bu ne soxla na benn volet économique bu koy dundal te ñi ci réew mi li ñu man mooy dajaloo liggéey ñu sos tool baay ci Taïba Kër Ayre bi ñu demee ba yëf yi gën a bëgg a jafe bëgg a të moo ñëw ci Baay radiyallahu anhu ne ko sa taalibe yi màggat nañ te gone yi duñ taalibe kenn tasaareel tool yi ñu tasaare tool yi ñu dem kenn ku nekk fa nga nekk ngay yëngatu di liggéeyal baay di ko dajale di ko fekk si te loolu am na jamono bu yàgg am na solo ak taxawaay bu bare bu mu am ci liggéey yi nga xam ne moom la Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu doon amal ci Medina xalif bi nee na yooyu ñetti taxawaay yo stratégique yoo xam ne bàyyi may na ko ndigal mu taxaw ci mu gunge ko mu ne yooyu suñuy fàttaliku Cheikh Sëñ Mbaye lu ñu war a fàttaliku la loolu nag ay qualité exceptionnelle yu bàyyi rek lay lay feddali loo waxal Cheikh Sëñ Mbaye Niass rek bàyyi nga ko waxal parce que Baye radiyallahu anhu moo ne kii moom lépp lu nekk ci moom maa ko def te lettre bi oustaz Ahmad Boucar jàng léegi lee Baye moo ko wax lii Cheikh Sëñ Mbaye Niass moo ko wax nag bi sama waaye di dem xàmmeeguma munuma tëral dara yow lépp lu waroon dis ci man yaa ma ci uutu yaa ma teg ci yoon dalay sax wax yi sama baay yi dimbale dama ma ñëw ci yow kon dafa di loo xam ne suñu koy fàttaliku dañuy xam ne Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu mooy ki nga xam ne mooy un manager hors pair ba nga xam ne ku am ay qualité ak i capacité nekk ci wetam dina ko exploité ci nu mu gën a rafetee ak nu mu gën a amee njëriñ ñetti initiative stratégique yooyu nag su ngeen xoolee ba fa Madina départ ba ñu départ ci fayda ba léegi ñett yooyu seen meññet jeexagul génn law nañu seen ñëw Madina moo ñu may lii tey tasaaroog muqaddam yi moo ñu may fayda dox bi gaaw tasaareeg tool yi ci taalibe yi moo mayee ñépp xam ne fu nit nekk liggéeyal fa bàyyi dajale ko yóbbu mu defal la ko ci yàlla lu war a mën a am la donc ñett yooyu dafa mat fàttali ci ñu waxtaanee Cheikh Sëñ Mbaye Niass radiyallahu anhu xalif bi nag ne mu ne ki def loolu gis na ne su ko fi yàlla bàyyi woon ba tey dina jëlaat ci xalaatam moom yeneen initiative yoo xam ne yooyu tamit néewul ci njëriñ suñ ko tëkkaleeg yañ tolloon ci ay jafe-jafe ak yiñ tollu tey nee na initiative yooyu bi mu gis ne su fi sañ Sëñ Bañes nekkoon tey dana ko njëkk a jël mu ne ko noonu dina taxaw fexe ba mbooloom bàyyi mi am kuréel goo xam ne dañ koy tuddee au conseil de planification stratégique nga xam ne dañuy dajaloo di xalaat luy doxal pays bi fii ak fukki at fii ak ñaar fukki at nekk ndimbalu xalifa bi ba nga xam ne décision yi ñuy jël ci pays bi day engagé ñëpp ci façon boo xam ne ñëppay xam lan la ñëpp taxaw ci liggéey bi yomb contrôle bi yomb ñaareelu initiative bi mu wax ne su fi nekkoon ba léegi dana ko jël mooy gis gim gis ne Médina banlieue bi ko wër Médina mu ngi étouffé wu parce que fees na mu ne su fi Cheikh Sëñ Bañes nekkoon gis na ne dina jël initiative ba li wër Médina ci côté bii ci càmmooy profondeur u vingt kilomètres dina ko jël ñu def ko suñu su suñu profondeur géographique stratégique ba nga xam ne dinañ fa am barab yu doy ba bépp projet bu Médina am mbooloo mi bokk ko ñu mën ko fa taxawal ñaareel bi tamit ku ne xam ne ne ñi àndoon ak Baye ñëw sanc si Medina kër yi ñu dëkkoon fees na seen doom yi amuñ fu ñu nekk konoon tamit loolu dina mën a absorber euh, euh, naka lañ maanaam développement wala croissance démographique bi nga xam ne ñooy jóge ci Medina soxla ay kër ñu mën leen installer foofu alxalif Cheikh Mouhamadul Mahi Sëñ mbay nee na gëm na ne bu fi Cheikh Sëñ Mbaye nekkoon boobu initiative dana ko jël initiative bu mujj bu mu jàpp ne su fi nekkoon dana ko jël mu ne mooy jàpp na ne. su fi nekkoon ba léegi dana fexe ba ñu am ay plan yoo xam ne dina nekk lu opérationnel ci seet naka la ñuy takkee taalibe yi ba ñépp dellu ci juróom muqaddam yi bàyyi yaxaloon ci jawharu nazim ne ñu dut yéen newuñ fi dalee coow li ak pexe yi bare nañu parce que loolu nee na gis na moo gën ci taalibe yi ku nañu xam foo aju lu xew ci yow ñu mën a taxaw ci sawet dimbalanteeg yow ku la bëgg a lottal ñu taxaw ci sa wet soo amee soxla ñu mën a xam yaay kan yow tamit fi nga aju su bi soxla ñu mën laa repérer xam yaay kan nga dellu si mu ne loolu gëm na ne moo ñetteelu initiative bi nga xam ne su fi Cheikh Sëñ Mbaye nekkoon tey dana ko jël li mu mujjee nag mu ne dafay fàttali ne moom gëm na ne mbooloo mënta am ci lu dul dajee waxtaan te loolu sëñ Barham radiyallahu anhu daf doon wax ne luñ bokk te duñ daje waxtaan ci yàqu na ba pare xalif bi nee na gis na ne mbooloom baay mi nu ñu toll fekk amul fu ñuy daje di fa waxtaanee lu ci aju ñëpp bokk ci mu ne gis na ne loolu ay nit la daje waaye mënul nekk mbooloo ñaareel bi itam mu ne gis na ne doole mënta am ci lu duut njiiteef gis na ne itamit njëriñ mënta am ci lu duut nas ay plan stratégique yoo xam ne ñëpp dañuy xam fu ñu jëm ci fii ak ay jamono ci tënk loolu mooy li nga xam ne loolu la ñu wax sànq ci baati arab di gërëm beneen yoon Cheikh Mahamadul Maahi sëñ mbay Niass di ñaan yàlla mu delli ko tawféex ak wér ak tal ak mbooloo mi rakkam ak taalibe yi di gërëm organisateurs yi ci taxawaay bu rafet bii nga xam ne moom ngeen am loolu mooy li ma sëñ bi digaloon ma jotal leen ko wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullah